mais nan nga gisee milieu animation bi nga nekk jeune dugg ci tentation yi bëri et tout yow en tant que jeune lan nga ñu ci mën wa metti na metti wul parce que man damay naan tout le temps nit ki boy def lo beug rek du metti parce que tout le temps dang koy def ak amour dang koy def ak passion donc man fofu la laa metti wul metti na nak ci côté bi nga xamantene des fois nit ñi duñ la comprendre bu wax dafa metti mën na des fois nga génn wax lo xamantene xeyna yow sax rendre ci compte wala bayyi wo ci xel bu ko defee ñu divulguer ko commencé di di la di la di la étiqueter le tégal la teg la fo xamantene amana sax nekkoo fa waye xeyna wax comme ni ñu koy waxee bal bu xasee ba génn moom dootul duggati donc côté boobu aussi metti na ak côté bi nga xamante ne aussi du ñu xam Bébé Chou bëgg ne Bébé Chou xëy na mi ngi avancé mi ngi teg pas dañ koy yàq côté boobu aussi metti na mais loolu yëpp aussi ci liggéey bi la bokk boo ci dugg dangay xaar ñu waxal la dara wala ñu bañ la waxal dara loolu yëpp daal euh, ci ci ci ci ci milieu bi la bokk en fait munoo ko bañ côté boobu moom metti na waaye dañuy gérer rek góorgóorlu

en fait yow yaay mën jox sa bop valeur pour que nit ki jox la valeur mais bo ñëwee joxo sa bop valeur wané wane que bëgg nga dara ñom tamit duñ la mëna tek fenn wala tam duñ la mëna jox valeur donc lepp lu ma leen di conseil rek moy ambitieux paré xam li nga bëgg parce que lool mo lay wanale nga egg fi nga bëgg dem ba dégg sa morom yi di wax ne milieu bi dafa am ay promotion canapé dafa am ay santage et tout di ngay gis ay xale jigéen yoo xam dañ lay wax ne ñoom dañ koy dund mhm. loolu am na am na te loolu mën naa ne du ci milieu médiatique bi kase milieu lépp yëpp la au bureau yeneen liggéeyi kaay yi yëpp. nañ leen yeb yéen célébrité yi. dañ ñu yab rek dañ ñu mais am na ñoo. pour man loolu yéen si yéen rek la am yéen parce que mi ngi ci mi ngi ci milieu yëpp am na koo xamante ne day daan dooleem day dem kër di enfin euh, min na daan doole comme ni ñu koy waxe peut-être foofu tam mën na fa am promotion canapé ah euh, euh, ki ko bind mën na ko chantage wala whatever donc liggéey bu nekk la yow rek yaa xam li ngay bëgg loolu rek moo la ci mën génn ne boo xamul li nga bëgg mom fofu mom day xaw metti kon yeen ni ngeen siw motax ñu fogné yeen seen milieu bi rek mel Non, en fait ñu suñu milieu bi lañu que milieu bi mom promotion canapé mais man je me dis que milieu yëpp mo am promotion canapé ya am sa fulla rek